tiis moo ñu indi fii yëpp uh, ci aéroport uh, AIBD donc uh, ñu ñëw di dalal ki nga xam ne mooy Pape Bouba jóg mu nekk loo xam ne tey wareef la pour bépp sénégalais rawatina ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci football wala yor kuréel yi nekk ci football bi ndaxte Pape Bouba bu ko yàlla wooyee defe naa naxar la bu sénégalais yëpp et particulièrement ñu nekk ci football bi donc euh, fédération bi mënul woon ñàkk teew fii comme ma tamit naataangoom 2002 yi ak yeneen acteurs yi football Sénégal yi nga xam ne tey dañuy ñëw delloo ko njukkal dalal ko fii ci réewam waaye delloo ko njukkal pour gunge ko aussi euh, maanaam ci këru yàlla bi nga xam ne foofu lay mujjee. Pape Bouba euh, su may wax ci moom mun naa ne mosuñu jonkante comme. dirigeant de football ak joueur mais euh, comme simple euh, supporter sénégalais euh, année 2000 ba jëm 2002 euh, Pape Bouba tey bu ñu taxee football sénégalais ñu koy wax fëpp ci àddina moom ak ak naataangoom rawatina moom ci boppam mu wane xarañ boo xam ne ci biir terrain xëj na ci lu bare bu ñuy jël par exemple coupe du monde ñetti bi yu mu dugal bu ci nekk rek diis na ci important diis boo xam ne kenn mënu ko naatable waaye tamit mën nañ ne ñetti bitam yooyu yóbbu nañu fu sore si compétition bi te Pape Bouba ci loolu la nekkoon équipe nationale saa yu si duggee day wane xaar kanam bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci bépp doomi sénégalais muy lan nekk góor nekk am fit am engagement di wane tam li nga xam ne mooy valeur yi nga xam ne mooy valeur sénégalaise parce que Pape si biir terrain bi gaynde dëggaloon mais bu génnee kenn gënu koo yaru kenn gënu koo maanaam wane xaar kanam boo xam ne Euh, dafa jekk ci sénégalais ñu ràññee leen ci fépp si àddina te moom loolu la dundee ba bu muy génn àddina donc euh, maintenant loolu moo tax tamit nit yi euh, génnum àddina marqué leen parce que il était exemplaire sur le terrain nekk meneur d'hommes mais bu génnee tamit il était exemplaire pour toute la jeunesse pour pour le peuple sénégalais parce que maanaam li nga xam ne mooy suñu titre ñun sénégalais yar ak yenn valeur yi nga xam ne moom la suñu maam yi baaxoo woon moom la doon wanee fu nekk te gis ngeen même génnum àddinam seddal def kenn yëgu ko ne feebar nag yëpp donc Pape daal gàcce nga alaama. waaw mooy comme li dal tiis bi dal senegal yëpp surtout waa Tëngéej dal leen mooy sunu rakk Pape Bouba Diop lii nag comme bés la boo xam ne du jaas faaw ñun ñëpp ñu ñëw gunge ko ci dernière bésam bi te ñaanal ko yàlla xare ko àjjana cat bañ dal ci kawam. Hmm. waaw mooy sénégalais yi rek gën a xam ni yàlla xam nga mu ngi fi tey ji Pape ci fleur de lage la nekk parce que boo xoolee xale la quarante deux ans la am tey ak li mu def ci àddina lépp tey mu demee nii donc lii njàngat bu bëri la ci sénégalais yi war jële jël xool yi doo boole ko mu doon benn et puis ñi nga xam ne tamit yàlla daf leen fi teg ñu def dara pour le Sénégal gars gën leen jox cër gën leen jàppale mais profité donc ci occasion bi di remercier le président ci taxawaay bi mu am décoré ko tey jii devant ses ci ay mbokkam devant sénégalais yi xam nga tey boo xoolee Sénégal yëpp am tiis rawatina nag waaru Rufisque parce que ñun ñoo dëkk Tëngéej Pape Bouba man ak magam ñoo bokkoon classe sama rakk la doon àndal sama rakk la bokk naa si sénégalais yi nga xam ne dëgg-dëgg mosaan ñëw vacances naa ko gis vacances yi fu mujjee man ak moom gise nañ reerandoo en 2017 donc tey jii mu ñëwaat fii ak nii donc tiis rek lañ ci mën a am dañ koy ñaanal rek cat bañ ko jiitu ci bàmmeelam ñaanal ko yàlla xare ko àjjana na puis njaboot njaboot bu ñu fi bàyyi yàlla teg leen loxo en tant que sportif euh, Pape Bouba déjà li gën a marquant ci moom mooy joueur bu gëmoon boppam la euh, déjà euh, boo fàttalikoo ci jamono il n'était pas titulaire en équipe du Sénégal mais patience am daf ko jël daf li ñuy wax prendre son mal en patience da ko def toog ba heure am jot. mais lu mu daan faral di wax moo di ni bis bu ma duggee ci équipe bi du ma génnaat te effectivement bi mu duggee ci équipe bi ba bi muy raccroché génnaatul ci équipe bi donc ça veut dire quoi que nit ku gën a ku gën boppam la et puis la valeur n'attend point le nombre des années moom ak Henri Camara bi ñuy démarré au Jaraaf de Dakar ils étaient juniors ñu déclassé leen yóbbu leen équipe senior ñu def fa quelque temps Henri dem Suisse bu ñu fàtte ni Henri Camara dem Suisse moom moo indi dem Suisse Pape Bouba Diop ndax proximité bu mu am te fu mu dem day wax ne bàyyi leen xel Pape Bouba mais Pape Bouba c'était un exemple de discipline tactique un exemple de discipline dans et en dor du terrain musoo ko dégg ci frasque musoo ko dégg ñu ne Pape Bouba moo fi def lii wala fubal nañu ba pare mu def lii fubal bu paree ci football doo ko déggaat ci leneen lu dul ci football même bi mu raccroché ay godaasam di ñëw Sénégal di delluwaat ñun journalistes yi chaque 31 mai dañuy soxla Pape Bouba mais est-ce que mus ngeen ko am interview non on l'a pas parce qu'il est discret et discrétion boobu moom la àndal ci feebaram feebaram deux ans mi ngi ko tëdd. mais loolu est si c'est normal parce que c'est sa volonté il y a des gens yu nga xam ne. Ils vivent dans la dignité, ils meurent dans la dignité. Ils vivent dans l'honneur, ils meurent dans l'honneur. Pape Bouba n'a pas voulu faire de publicité autour de sa maladie. C'est lui qui a voulu que les gens soient discrets. Il a donné des ordres à sa famille pour kenn bañ a wax ne dafa feebar. am na ñu ko yëg ñu nga xam ne ay journalistes la ñu benn ci Gomis bu Walfadjri yëg na ko mais Gomis est proche de la famille mais on leur a demandé de ne pas en parler. parce que moom ci sutura la mus a dund ci discrétion la musa a dund soxlawul ku ko ne ndeysaan et na fu nga xam ne buñ ko yëgoon ñun dinañ ko yërëm ndax ki nga xam ne tànk yi mu yor ci la bégal Sénégal yëpp tànk yi mu yor ci la daw ay kilomètres au Sénégal sur les rectangles verts d'Afrique sur les rectangles verts d'Asie Pape ba a parcouru combien de kilomètres dans sa vie lu mu am tànkam moo ko ko amal lu mu am ci teraanga ay tànkam moo ko ko jox nga dem ba nekk ku nga xam ne ci chaise lant nga toog c'est bu ñu déggee bu taxawaay bi dafa sax amul bay doy taxawaay bi ñu war a taxawu l'international sénégalais amul je l'ai dit dans une interview. ça m'a marqué et ça m'a choqué ma ñëw stade Demba Diop ñu téye Roger Mendy ci bunt bi stade Demba boobu bi ñuy football contre Zimbabwe ñu gëj Coupe d'Afrique des Nations à Asmara 68 ñu war a daje ak Zimbabwe en 1985 stade bi fees dell noir de monde Roger Mendy moom moo doon football libéraux nit ñi ñëw di ko seetaan si moom mu ñëw di dugg ci stade boobu nga xam ne moom marqué na fa l'histoire du football sénégalais ñu koy téye c'est inadmissible je suis allé au stade Lat Dior Amadou Diop Boy Bandi capitaine de l'équipe du Sénégal en 1986 ñu yóbbu ko Géttu Bay ay nit yu nga xamante ni nii mosuñu jëriñ dara football takk seen i toog loge officielle keroog dama aalu seen kaw ni leen yéen mérité wu leen toog foofu Amadou Diop warul toog fii. Parce que qu'Amadou Diop a servi la nation. Il était capitaine de cette équipe du Sénégal pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, mon Mouignou pour cet match équipe nationale, ça veut dire qu'il n'y a pas de la reconnaissance. Et ce jour, Sega Sakho m'a dit clairement que nous avons un quota billet pour nous faire des matins. Nous avons un billet du Dougou Essad. war leen yor invitation di dugg stade da ngeen am lu leen war a mandargaal stade du Sénégal warul leen ci fay ku jouer équipe nationale les honneurs au pays ba dem ba tekki say godaas kenn warul a fayloo. d'accord ci ñoom waruñu am place sax benn stade stade benn place boo xam ne pour ñoom lay nekk. mais absolument il faut qu'on leur rende honneur. aujourd'hui Emmanuel Petit du dem France ñu koy ñu koy téye Didier Deschamps du dugg fenn euh, France ñu koy téye et cetera et cetera aujourd'hui euh, tey Didier Drogba xalaat nga mu dem euh, Côte d'Ivoire ñu koy téye ci buntu stade Samuel Eto'o xalaat nga mu dem Cameroun ñu koy téye wala fenn ci Afrique. alors les internationaux sénégalais il faut que ñu delloo leen seen cër jox leen seen gëdd ñi nga xam ne comme man la ñu yem mënuñu orienté mënuñu dóor mësuñu dugal but takk ay cravate toog ci ay tribune c'est pas normal il faut qu'on donne au à l'international sénégalais son vrai statut delloo ko gëddëm bi mu war a am mi ngi mel ni un soldat qui tombe sur le champ de bataille on doit lui rendre les honneurs. merci beaucoup. Euh, boo xam ne. mën naa wax ni kenn mënul quantifier degré patriotisme bu Bouba Diop euh, comme na ma ko waxee sànq rek euh, naqar la naqar boo xam ne tiis la tiis bu metti euh, waaye ñu ñoo xam ne ndogalu yàlla yàlla lu moom lu mu bëgg rek ñun ñu ñu ñàkk. lan nga ci nit waaw Bouba moom mën naa wax lu bari ci moom. Euh, parce que mën naa wax ni que dafa ñëw fekkee équipe boo xam ne équipe bu bu constituée la ba pare euh, mu nekk xale ñëw euh, fekk fa fekk si ay ay magam lu ma mën a wax ci moom mooy que premier match international bu mu def ak équipe A bi mooy après midi boobu fële ci ci Bamako bu ñu doon jouer demi-finale contre contre Nigéria naa wax ni que ñu Sénégalais yëpp fa nañ ko fa nañ ko découvrir Euh, mu fekk euh, match bi nekk match bu metti mu doon def euh, xaw ma trente cinq degré quarante degré ñu débuté woon match bi bi vraiment ci condition yu métti buuba dugg si mu fekk ñu ñuy perdre un zéro Pape Sarr jël carton rouge ñuy joué dix contre onze pratiquement pendant cent vingt minutes mu doon nañ xalaat ni que xale la bu ñëwee dina tiit wala dina ragal au contraire dégonflé wul wane ni foog naa but égalisation bi moom moo ko dugal ba pare ñu gagné de 1 contre contre Nigéria ba ñu dem final. Euh, mën naa ci wax lu bëri bëri bëri bëri mais lu ma mën a wax rek mooy que en tout cas euh, génération 2002 bi ma waxaat ko comme ni ma ko waxee sànq rek ñu ngi leen di ñu ngi ñu ngi présenté suñuy condoléances ci famille bi surtout ci doomam yi ak ak soxnam si mariage jërëjëf. a lu bëri dañu sekk lu bëri donc sekkoon nañ loo xamante ne euh, raw na football bi quoi. tey franchement awuma doole bu ma waxee dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaaree àjjana yu gën a kawe. jërëjëf merci. Pape Bouba mosul def loolu saa bi ne Pape Bouba boo xoolee ay photoom rek war na la wan kii ban façon nit la woon donc c'est un exemple il l'a montré carrément wane na xamul xuloo xamul xeex. ba pare ku doon dajale ku discret la kon je pense que tey Pape Bouba dafa mérité plus que ça les gens ñu ngi rappelé kii contre France mais man contre Paraguay laay rappelé et je pense que dama koy ñaanal yàlla na suuf sedd si kaw. un digne fils du Sénégal est parti quelqu'un qui a représenté le Sénégal qui a hissé le drapeau haut du Sénégal partout dans le monde donc. Euh... il mérite un, hommage de, de, telle façon. Donc, euh, il, euh, c'est quelqu'un aujourd'hui qui, qui nous a en sélection. C'est quelqu'un qui a de ce de, de ce football sénégalais là. gis ne amoon ngeen benn communication lan ngeen loo xam ne def na sa bopp loo mënatul fàtte moom. Euh, li ñuy wax rek moo di mémoire Pape Bouba mémoire Pape Bouba ñu tey ko bu baax a baax Pape Bouba def na fi lu nga xam ne tey jii kenn waru ko fàtte sénégalais yi waruñu ko fàtte. Mhm. di wax ni ñun ñi fi nekk tey jii. toogal kafi dinañu veiller si famille am dinañu veiller aujourd'hui si œuvre li mu def dina nu veiller aussi si si si si li mu li mu li mu jot liggéey ñu koy jàngal les génération futures à venir ñu bis ne même à 2002 bii bi mu dugaloon yow yaa ko paasoon tey Pape Bouba lan ngeen dund loo xam ne yow des na sa bopp lu mënatul fàtte de toute façon mën naa wax ne man sama jumeau parce que tey jii ku wax Pape Bouba sa xel dina dem si El Hadj ndax 2002 ndax euh, contre la France ku wax élage Hadj nga wax Pape Bouba ku wax Pape Bouba di nga wax élage man dama ko doon wax sama jumeau la ndax euh, peut-être que bokk na jour bu nu bu nu bu nu bu nu juddoo mais ñoo bokk jour bi nu yàlla taalee man moom et que euh, tey jii fierté la franchement man tey jii fu nu tuddee exemple nit ko exemple nit ko modèle ku mel ne Pape Bouba tudd ma fa. du ma def daal lu dul wax que gaynde repose-toi en paix gaynde repose-toi yal na la yàlla defal jàmm fi nga nekk fii mu jugee yal na fi muy dem mu gënal ko fuuf. on ne peut pas parler de Pape Bouba sans parler de la Hadji Diouf on ne peut pas parler de El Hadji Diouf sans parler de Pape Bouba et c'est quelqu'un qui mérite tous les hommages aujourd'hui et je dis encore une fois de plus c'est ça le Sénégal et espérons que aujourd'hui euh, ce qui nous est arrivé va rassembler va rassembler notre pays à aller gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun va, unir les cœurs pour que les Sénégalais puissent euh, se donner la main dans la main et de travailler ensemble pour la nation et pour le beau pays qu'on de M. Bouba Diop ah, Plein de souvenirs. Moi, c'est son sourire qui me manque. Euh, Pabouba, on ne peut pas le voir. Tu jamais vu Pabouba sans le sourire. Et comme l'appelaient le, les Anglais, on l'appelait Babyface. Babyface, ça veut dire... Euh, euh, comment dirais-je encore, Babyface, ça veut dire, euh, euh, comme il était grand, costaud, et il avait un, un, un, une tranche d'ange, de bébé. Bouba, quand tu le voyais, tu étais obligé de l'aimer, de l'adorer. Même sur le terrain, des, des gens comme nous, aujourd'hui, euh, qui s'énervent. De temps en temps, ça nous arrivait de s'énerver. Mais Bouba a toujours gardé son calme. Et c'est comme ça, il est parti. Et tout ce que je demande au bon Dieu, c'est de l'amener dans ses meilleurs paradis. Et comme on le dit chez nous, Gaïndé, repose-toi en paix. ñu ngi leen di jaajëfal